dal leen ak jàmm ci seen revue de presse people ñu dooree ko ak Eva Tra moom de nee na naam ca King FM waaye la mu tontu waa ji nga xam ni moo ko doon woo ci émission wareef ca TFM di ko jéem a wàññi moom xamal na ko ni merul benn yoon ndax siiw du jàmmi borom Eva Tra nga ni parce que xam nga boo am na yenn métier yoo xam ne il faut que ñu teel ko comprendre boo ko choisir nga dugg ca boo ñëwee na nga xam ne lu ne mën na la caa fekk boo bëggoon ñu bañ laa waxal leen da ngay toog sa kër sàngoo mbàjj mais tu ne peux te bañ ne xeer yi du ñu agsi et yooyu noonu ngay gis léegi saay nu la koy defal moo lay sax yokk waaye boo ca àddoon neneen nga xam ne wax dëgg yàlla da nga warut yem ak ñoom doonte ci ñoom am na ñu la gën fuuf waaye daal bu nit defee yenn yëf yi safaan wi yow da nga war a am esprit de dépassement. ñu des ba tey ci site bi. dib dundu gis ak waa Reptile Music 221 ñu ngi wajal lu reuy ci été bi gannaaw ba ñu teewee ci yewu leen ci émission Baye Cheikh Diallo ngir yëgle album bu bees tak ak tournée yu ñu wara amal ci sen projet musical ay son yu amul fenn ngeen ni déglul am jot wessul waxtu koo xam ne saa xëyee mu ngi liggé ayu yaaye ayu yaaye Cuisine la sauce. Sauce dinos, Cuisine la sauce. Sauce di yaïe, Ayouyaye. yaïe, ya, ye. Mane cuisine la sauce. Sauce dinos, Cuisine la sauce. Sauce dinos, Reptile Music 221. Bang bang. APS di ñëw ak jeu francophonie Mbougar Sarr di ab sénégalais mom nak mo jël raw gaddu gi ci walum littérature ci talata gi médaille bronze nak lañu ko jox waaye mu ci doon sargal lekk ki nga xamante ni moy dem ci yalla Doudou Ndiaye Rose ak Vieux Sagne fay tuddé ko neund président français bi di Emmanuel Macron jot naa recevoir ki di Rihanna ci Élysée waaye Brigitte Macron di première dame mom nak moko téru waaye Rihanna rek ak colinam indi na riir gu bëri foofu ca dëkk ba ndax XXL rek la sol du dara nag lu ko ci jot ba génnee nag muy xamal taskatu xibaar yi rek ni mook président bi waxtaan nañ ci ay pàcc yu bëri ci wàllum éducation te Emmanuel Macron sax moom nee na dina génnee lu toll ci 3 milliards d'euros ngir jàppale waa Afrique ak Kim Kardashian ak kii di rakkam bi di lii janaar ñoom nag ñu ngi leen ñuy jiiñ ne dañuy sàcc logo jaambur yi siit bii nag di 7 sur moo ñu ko indil benn maquilleuse bu nekk Danemark waaye dëkk fële ca New York moom nag mu ngi xamle rek nii kii di Kim Kardashian dafa sàcc markam muy KKW monte sax mën naa nekk Kim Kardashian West waaye kenn xamul moom nag mu ñaan justice américaine bi mu jug ci bii problème ndax bëggatul benn yoon Kim Kardashian West di utiliser initial bii di logo wam. te bëgg na lépp loo xamante ne Kim Kardashian utiliser woon na ko ci logo boobu ñu jox ko ko te bëgg na ñu koy jox chaque weer bu dee ab dommage intérêt pour jëf ji ñu ko def waaye bu ñu ñëwee ci kii di rakkam bi di Kayli moom it ñu ngi koy jiiñ ni dafa jël logo wu jàmbur ci pentre bii ñuy woowee Sarah Pop nga xam ni dafa yor galerie américaine anglaise ak japonaise ne gannaaw ba Kayli sàccee loolu noonu daf ko def ci benn émission bu bees bu téléréalité Life of Kayli ñu rek revue de presse bi 7 sur 7 bi Caitlyn Jenner moom nag Trump ana promesse ya mu defoon di président américain bi moom dafa yëgle woon ci mercredi ni transgenre nga da ngir dootoo bokk ci armée américain bi waaye mu merloo ci ay américain yu bëri rawatina hollywoodien yi waaye kiiri kayit Caitlyn Jenner moom da cee gis boppam bu baax ba mu jaral ko muy tontu ni lii ab paaka la rekk bu ñu jam ci ginnaaw lii moo nekkoon seen revue de presse people ma la ñuy jox dig daje ba talaata